yow la famille maa leen nuyu yéen ñëpp maa leen di ziar yéen ñëpp j'espère seen frère Mor Talla Gueye dof vidéo bi maa ngi koy def pour wax leen que ni muy préfet muy ay ministre muy ponkal yu nekk si ginnaaw yëpp ñu ngi saboté suñu concert ñu ngi saboté ni dof ñu ngi saboté le ñu ngi saboté cette jeunesse bi nga xam ne mu ngi doon préparé pour def sa douzième édition du show of the year ministre de la culture ministre de la jeunesse da ngeen am seen concert moo tax lii yëpp man génnewu ma leen si ci ginnaaw coow jibul neen stade bi semaine yi yëpp ay manifestation mi ngi fay am te te autorisation lañ koy defee su amoon problème ñi ñuy jox stade bi dinañu woo nañu problème dafa am su fa concert mënul woon am ñi ñuy jox stade bi bi ñu ñëw di monter dinañu wax que ni noonu noonu li du a am ñoom ñoo ñu jox stade bi ñoom ñoo ñu depuis boobu noonu ñoom la ñuy c'est parce que c'est nit dof c'est parce que vous voulez des problèmes c'est parce que vous voulez saboter le show off d'ailleurs c'est parce que da ngeen am ay artistes yu fëgg seen bureau te ñun du ngeen ñu gis parce que ñun dignité la ñuy demee suñu ñu leen stade amul luy niroog problème bu ñu tey concert am fa parce que bu doon loolu ngel du fa am semaine yooyu passé ay gàmm yu mag du fa am semaine bi passé joxaat nañ ko pour le 24 et le 30 de 30 le 30 décembre su fekkoon dafa am problème du ngeen ko joxe su fekkee que ne nag da ngeen xalaat que ni mën ngeen jaar ci genre yi pour ma briser da ngeen di nax seen bopp. su nekkoon ni seen artistes yi fëgg seen bureau yi la su woowee benn directeur benn ministre ñu xool ba xam di ngeen annuler seen concert ñu xool ba xam di seen seen seen seen autorisation vous tous derrière ça vous êtes des et si vous pensez que mën ngeen ma briser mën ngeen toucher sama sama ego wala sama fierté da ngeen di nax seen bopp parce que am na des choses beaucoup plus importantes dans à mes yeux Abdou Karim Gueye mu ngi ci kaso bi ñu tëj deful dara Cheikh Omar Diagne mu ngi ci kaso bi ñu tëj deful dara Ousmane Diagne mu ngi ci kaso bi ñu tëj deful dara Fadilou Keïta mu ngi ci kaso bi ñu tëj deful dara Mankabou ak ñeneen ak ñeneen rey nañ leen fii donc si vous pensez qu'annuler un concert mooy laal suñu moral da ngeen di nax seen bopp te instant bi lépp lu muy mën a indi coow ci dëkk bi ngeen di def parce que porox ndol ngeen di wut mais bisu xeex bu accès di ngeen ko xam bisu xuloo bu accès di ko xam donc bépp peuple képp ku nekk si réew ku nekk bitim réew na nga xam que ni encore une fois sunu ay nguur ñi ñuy dund ay bassesse ñu ñàkk fayda amuñu kuñ ko dund loolu su ces jeunes yu buggoon dund seen passion jënd seen ay ticket wuti seen ay yére ñoom ak seen ay xarit ñoom ñëpp joxante rendez-vous ñi jugee Fouta ñi jugee Ziguinchor ñeneen ñi jugee ba à di du pays euh, euh, euh, fu gën a sori bëgg ñëw fekkee concert bi amul leen lenn lu ngeen def lu dul annulé bañay joxe l'autorisation depuis boobu mel euh, promoteur mi ngi seen bureau toog di xaar nanguwu leen ko recevoir ngeen ni mën na kuy kuy wax ak ay étrangers yu nekkul seen rew te douzième édition la ñu mais li leen metti mooy ñun du ngeen ñu gis seen i bureau bëgguñu leen nous sommes avec le peuple nous sommes les artistes du peuple ñun peuple bi la ñuy waxal du ngeen ñu mës a gis seen i bureau seen i numéro téléphone am ngeen seen i artiste bopp xam ngeen ñi ngeen recevoir ak ñi ngeen financé lu tax ngeen bëgg a arrêté le show of the year xam ngeen ko li tax ngeen bëgg ko saboté xam ngeen ko bu fekkoon problème dafa am foofu ay ay manifestation du fa am weekend yi yëpp ñu génn bu fekkoon wax que ni non non mun leen fi dem leen wuti da ngeen bàyyi ba ne suba la nga xam ne su ngeen ñu ko defee dootuñu mën a rebondir mais vous pensez que daf ñuy briser dafay laal suñu moral wala dañ ciy wax loo xam dañuy day problème toutes les personnes yi nga xam ne ñuy déglu soyez serein ànd leen seen xel le combat faneen la ñii porox ndol la ñuy wut bu la ngeen sax jéem a nekk ci xel ñu xuloowuñu réew mi moo ñu ñor nous on veut impacter positivement euh, euh, si suñu jeunesse réew dañu bëgg jeunesse bi yeewu yëkkati seen bopp yëkkati Sénégal ñu yëkkati Afrique suñu combat c'est tellement très éloigné de vos bassesses de vos petits trucs la votre clique bu ñàkk fayda à part sàcc alalu réew mi gis ngeen cour des comptes à part teg ay complot lan ngeen amal njariñ seen réew yéen ñëpp vos directeurs vos ministres vos espèces de comploteurs et des voleurs que vous êtes et vous pensez que nous les gens du peuple les gens dignes dinañ ñëw raam seen i pour un concert wala pour une autorisation lekk leen ko maa négg lekk leen stade bi lekk leen concert bi lekk leen Iba Mar maa négg mais bu ngeen mos a laal suñu man sama diine sama famille ak sama réew à yi lan ngeen mën a jël ci man concert sama carrière la neen loolu am na lu ko ëpp njariñ suñu yaay bët vous pas nous atteindre on est trop loin de vos ban didio que vous êtes et vous pensez que mën ngeen ñëw ñun ñun ngeen sàkketoo ñu pour que ñu génn créer ay boucan pour que ngeen am ay poroxndol du ngeen ko jaare ci ñun bisu xeex ak seegul bisu xuloo ak seegul tout le peuple je vous prends en témoin pour wan encore une fois bassesse xam ne suñu nguuru réew ñu koy ñu koy il fallait que ngeen trouver ñu benn benk ñenk buy tax concert bi bañ am may wax ngeen di teg Iba Mar problème yi fa am bokku la sax fi ñuy toog fi nit ñuy toog ak fi nit ñuy defee concert te bu fekkoon que ni événement yi jàll ci ginnaaw amul ñu mën leen d'accordal mais da ngeen bàyyi événement yëpp am ñu bàyyi ba show of the year ngeen bëgg ñu tegal ay ay ay excuse bëgg ñu tegal ay excuse vous savez que c'est faux mais nag yéen a ngi noonu seen ko amu sax conscience mais ñun lu ñu mën a waxal suñu peuple mooy on va voir ça avec le promoteur avec toute soit on rembourse les tickets soit ñu jëlaat beneen date defaat ko ci beneen anam boo xam ni peuple bi mooy ñëwaat jàppaat ci concert bi seen xol yi di dagg te ñu mën a neex dans tout ça vous ne verrez jamais dans vos bureaux je n'ai pas vos numéros de téléphone je ne vous aime pas je veux pas vous voir et vous n'aurez jamais ku ma leen di dof calibre bi ma doon ci réew mi ma ñëw di wax ay Anita Diop ministre de la jeunesse yow yaa ngi fan financé sa concert faneen yow ak ñeneen yow ak ministre de la culture ngeen dem financé seen yeneen concert ngeen fokk ne ñun mën ngeen ñu briser vous trop petit pour ça vous trop faible pour ça ñun fi ñu teg suñu bët mooy Sénégal bu jëm ci kanam Afrique bu siggi foofu la ñu teg suñu bët conscientiser la jeunesse si vous pensez que seen yu ñàkk fayda yi mën nañu atteindre da ngeen di nax seen bopp da nax seen bopp ban dijo que vous asalaamaaleykum Sénégal ne pas donner l'autorisation pour le show off de yeux defu leen ko di dofan askanu Sénégal ngeen ko def jeunesse su Sénégal ngeen ko def parce que depuis douze ans douze années c'est l'un des événements les plus grands au Sénégal pas seulement ci monde hip-hop mais ci agenda culturel pays bi j'ai vu des jeunes venir de partout Tamba Ziguinchor Kolda Louga partout pour assister à ce grand événement ren parce que nit dof a des positions et il les vous voulez annuler ce show defu leen ko ko jeunesse sénégalaise bi ngeen ko def il a mis des moyens des gens ont acheté leur ticket il y a eu des logistiques yu ñu fa teg et autres pensez à ce que vous faites à votre jeunesse vous ne leur donnez pas des opportunités bu leen leen xañ yu ñu tegal seen bopp aujourd'hui votre devoir c'était de pérenniser cet événement yokk ci agenda culturel bu Sénégal yokk ko doole gis les entreprises seen responsabilité sociétale ñu jox ay moyens cet événement là ndax sa waay jéngu na ba ñafe ko teg ko Dakar teg ko dans les régions aujourd'hui teg ko sax à l'étranger et des gens de l'étranger ils viennent juste pour ce festival ngeen di def affaire cuune yi ça ne vous grandit pas vous êtes trop petit hein et encore 24 heures pour valider le show mais il n'est arrêté leen seen yi ngeen di def respecter la jeunesse pour une fois ngeen bàyyi nit ñi dem bégee fàtte seen ay problème amuñu liggéey amuñu jàng fajowuñu feebar nañ sonn nañ bu leen ngeen bëgg a annuler suñu ay show c'est quoi ça arrêté defu leen ko nit dof Sénégal gi yëpp ngeen asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum ëhlu hip hop asalaamaaleykum ëhlu music show of the year nekk événement boo ni nit dof ak mu jot show of the year dem na ba nekk un événement boo xamante ni artiste waxuma la hip hop mais képp kuy artiste yaa ngi gis sa bopp jël ko approprier ko moomal ko sa bopp show of the year war a am ëllëg ñu def lépp liñ ci war def ñu nekk ba tey installé ba def lépp ñu jot benn coup de fil venant du préfet mu ne show boobu dañuy obligé annulé ko parce que stade bi mënul contenir événement bu toll noonu ñépp xam nañ ni c'est une décision purement politique maintenant je veux que tous les artistes bàyyiwuma kenn tous les artistes ñu def une vidéo pour dénoncer ça je ne dis pas une vidéo de soutien mais une vidéo pour dénoncer encore cette injustice bi nga xamante ne ñépp xam nañ ni ki koy def nit daf ki la dafa am une position par rapport ak gouvernement bi ni ñuy doxee par rapport ak ni ñuy doxalee politique fii ci Sénégal d'accord ci donc il est victime de cette position et nous demandons à tous les artistes et à tous les Sénégalais de faire une vidéo vraiment de dénoncer cette injustice tu as le soutien de tous les Sénégalais